bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifatil ilmi waxsin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba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 ak yitte yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def te léeg-léeg mu duggante ak waxtu julli yi ñaan borom bi mu boole ñu nangul di jaale ñi nga xam ne génn nañ àdduna ci ay bis gi ndax léegi moom daanaka fu nit yëkkatee kàddu rek boo muy wut bu dee daa janoo mbooloo am na ca ñu muy jaale bu dee dañ ko cay déglu it am na ci yu mel noonu yu muy bàyyi xel ñaan borom bi subxanahu wa ta'ala mu yërëm leen ñaan ko mu jéggal leen. moo xam ñi faatu ci seeni kër la ki tawat ndax feebar léeg-léeg mu nekk soldaaru dee waaye jotewuñu dara nag borom bi subhaanahu wa mooy jël bakkan saa ko neexe wala ñi nga xam ne dañoo faatu ci accident yal na yàlla yërëm ñëpp yal na yàlla jéggal leen ñoo ngi jaale suñu wëllëre suñu xarit Babacar Ndiaye doonoon kenn ci ñun nga xam ne ñu baree bari xam nañ ko waaye juróom wu góor Baay Demba Njaay nekkoon foofu ci Mbuur yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare aljanna ak mboolem ñi nga xamante ni génn nañu àdduna ci ay bis gi ku lim juum loolu nag buñ ko waxee ci ay faatu ñu xam ne tiit jot na waaye feeg yaa ngi koy dégg ñu koy tàgge ñu lay tàgge nit nga yéemu rek dalagut ci sa kaw bis day ñëw nag kii tàgge moom ci boppam la ñuy tàgge yal nañ dajeeg ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala bu boobaa te dëkk di ko waajal yal nañu borom bi jàppal boppam léeg-léeg sax olof di ñaan ne yal nañu yàlla jàppale waaye yàlla moom du jàpp nga jàpp ci waxin waaye dalay jàppal yëf yi bam jàppandi ci yow li ciy nuru sag jàpp yow jaam bi mooy sabablu yi ngay def sabablu yi ngay def ci mbir yi ginnaaw bi nga xamante ne borom bi du defal kenn lu man léegi naw gi nga koy naw ak bàyyi gi ngay bàyyi xel sa borom subhanahu wa taala moo tax li nga war a def da koy def boo noppee rafet njortu ci moom li nga war a def lépp da nga koy def boo noppee rafet njortu ci sa borom ab julit du ñaaw njortu ci boromam dégg nga ab jullit du ñaaw njortu ci boromam na nga rafet njortu ci sa borom ab julit buy tiit da koy booleeg yaakaar. buy tiit da koy boole xel mu dal moo tax lépp lu koy taxa tiit da koy moytandiku lépp lu koy indil xel mu dal day ñaan boromam mu dalale noonu am xelam hmm. day ñaan noonu boroomam dalale noonu am xelam ndax tiitaange ci mbugal yi la bokk xel mu ñàkk dal ci mbugal la bokk te loolu mooy tax fitu nit ki du toog te bu boobaa mu ñaaw njortu ci boroomam moo tax day rafet njort am yaakaar lool ne buñ ñëwoon kenn nay dugg aljanna mu yaakaar ne moom la waaye ci ag wetit mu tiit lool ci màggaayu boroomam ak sañ-sañam ba buñ ñëwoon kenn nay dugg sawara mu yaakaar ne moom la yal nañu yàlla musal ci sawara yal nañu ci dégg doy loolu dana tax mu xam dëgg-dëgg lan moo ko fi indi ak fan lay teg tànkam loolu dana tax mu xam lan moo ko fi indi ak fan la war a teg tànkam suñu bindi altine yi ñi ngi ci doon waxtaane téere boobu nga xamante ne mooy Laxdari yu nekkoon ci summa maxrifatu maa yuslihu bihi farda aynihi ka ahkaami salaati wa tahaarati wa siyaami mu ginnaaw ba waxee ne li njëkk war war mukallaf mooy dëgëral ngëmam te ma waxoon la ko awalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi ma waxoon la lan mooy ngëm yàlla ak li ci aju mu ne ginnaaw bi loolu jàllee nag day war ci mu kallaf mi mu xam mu xam li nga xam ne mooy baaxal faratay boppam yi farata yi nga xam ne kenn mënu la koo defaale loolu mooy sa faratay jëmm ma waxoon la ci ne daa am lu ñuy wax fardul ayni ak lu ñuy wax fardul kifaaya danañ ci mas dikk ci lu yaatu ci ñaari farata yooyu farata léeg-léeg ñu tudde ko al fard waaye léeg-léeg ñu tudde ko al waajib te li muy tekki mooy lu war lu war loo xamante ne e, farata la mooy lu war léeg ñu ne nangam de moom def ko farata la day tegtal ne loolu daa war bu doon bëccëg la yi ñu war a xéwloo añ moom farata la am na nag yu war a jiitu añ bu dee kuy jël entrée am na yum cay toftal muy dessert yooye mën naa bañ a doon farata waaw misaal moomu moom dana arranger mbayeen yi ak ture ture yi ak jaxate jaxate yeeg kanji kanji yi <laughs> borom sant yu naqare yi dana leen arranger bu ko defee alfardu moomu waxoon naa la mooy lan ma ne la mooy li nga xam ne bu ko mukallaf mi defee ñu bindal ko ci ak pay bu ko bàyyee ñu bindal ko ci bàkkaar ma waxoon la ne ci biir farata ci boppam day am ay farata yu ca nekk julli lu mel ne yéene nam nekke farata ci biir julli koor lu mel ne yéene nam ca nekke farata njàpp ni nga xamante ne raxas tànk ya ak sël mu farata la ca loolu mooy li nga xam ne moom la ñu farata jaaroon naa cee yow altine ji ñu génn jaara jaaruwaay bu yaatu bu bi mooy li ñuy wax sunna sunna asunna buñ ko doon wax ci wax ju gàtt rek dañ lay wax ne la amrun al mustahabu fihluhu mbir la moo xam ne dañoo sopp nit ki def ko maanaam def ko lu baax la bu ko nit ki defee am ca pay waaye bu ko bàyyee borom bi mën na ko caa bañ a bindal bàkkaar mën na ko caa mbugal bañ bañ a mbugal lu dul mu bàyyi ko bàyyi maa ko tey waxoon naa la sunna dayo bi mu am mooy dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam te moo ñu firil alquran te moo ñu firil alquran moo tax nit da koy fonk am na ñuy woor altine woor altine sunna la ko ko woor am tiyaaba waaye ku toogoon bañ koo woor it doo ci am benn bàkkaar ci ñàkk woor gi nga ñàkk a woor altine loolu mooy sunna bu dee ci biir jaamu yàlla yi nag daa am ay sunna yu ci nekk moo la koy firil lu mel ne njàpp boo ñëwee sarax ndiku googu lu mel ne koor gaaw a xëdd ak yeex a dog yu mel noonu ay sunna la yoo xamante ne mi ngi ci biir loolu mooy sunna bu ñetteel bi tama jaar loon la ci mooy lu xaraam loo xam ne dafa xaraam muy alxaraamu mooy ñetteel bi lu araam bu ko mu mukallaf mi bàyyee ñu bindal ko ci tiyaaba bu ko defee ñu bindal ko ci bàkkaar mu waral mbugal ci moom mooy lu mel ne naan sàngara lu mel ne sàcc lu mel ne ree ci biiru julli lu mel ne bàyyi njàpp bañ koo def te amoo lenn ngant ba noppi bëgg a julli noonu yu demee noonu nga xam ne yu baree baree bari yu xaraam faaw nga di ko dégg ci penc mi ñu naan nangam xaraam na léeg-léeg ñu ne nangam dagan na mhm. lu doy war la na kenn wërta gaaw a wax nangam araam na kenn wërta wax nangam dagan na te amoo ci benn tegtal kenn amu ci benn lay ndax loolu kenn du ko teg cim xel lu aram mooy loo xam ne bu ko nit ki defee kon am ci bàkkaar am ci bàkkaar dinaa mas a ñëw waxtaane bàkkaar ci boppam mooy lan ak xaaji bàkkaar yi ndax daa am bàkkaar bu mag am bàkkaar yu ndaw yu mag yi mooy alkabair junjoon naa la ko ci ay bis gee ñu génn ba ko ñeenteel te ma waroon caa ñëw tey mooy li ñuy wax lu ñu sip loo xam ne dañ koo sip dafa am loo xam ne farata la wax naa la ko def ko mënta ñàkk am loo xam ne sunna la boo ko defee ñu bindal la ci tiyaaba boo ko bàyyee Eh, duñ la ci bindal bàkkaar am loo xam ne lu araam la def ko am ci bàkkaar bàyyi ko am tiyaaba am loo xam ne moom la ñuy wax al makruh te mooy lu ñu sip mooy mbir moo xam ne sopp nañ sopp nañ nga bàyyi ko bañ koo def sopp nañ nga bañ koo def nga xam ne dañ lay bindal tiyaaba ci boo ko bàyyee waaye duñ la mbugal ci boo ko defee ak gut ci def bàkkaar ak gut ci def bàkkaar waaye bañ gee def moom dañ la ciy bindal tiyaaba boo ko defee nag kenn du la bindal dara waaye luñ sib mooy yóbbu nit ci def bàkkaar man na maa wax ne mooy buum gi dox ci diggante dagan ak xaram nga xam ne boo fi taxawee mën ngaa daanu ci dagan mën ngaa daanu ci araam moo tax taxaw fa wóorut taxaw fa wóorut moytandiku foofa rek moo war moo tax ñu naan la nangam dañ ko sib bul wax ne ah dañ koo sib dong loolu araamut boo bëggee fegu te bëgg a sàmm sa diine dangay ngay moytandiku yu lënt yi yi nga xamante ne foofu la nekk ci ay lënt-lënt moom la xadis ba doon wax ne yi dagan leer na naññ yi araam leer na naññ yi ne ci diggante bi mooy yi nga xam ne dafa lënt dafa lënt loolu ñu bari xamuñ ko ku bëgg a muccal sa diine nag dangay ngay moytandiku yooyu mu ngi mel ne ki doon julli ba mu yàgg mu gestu lim def yàqut julli gi waaye luñ sib la ku doon julli gëmm ay bëtam dañ koo sib wala yu demee noonu ku doon jàpp raxas lu ëpp ñetti yoon cere bi maanaam au ma gàllax nu ñetti yoon ma gàllax ndiku ñeenti yoon wala juróom yàqut dara ci njàpp mi waaye doonu lu gën li gënoon mooy yem ca lañ ma digaloon bu ngànt amut loolu mooy lu sib mu am leneen lu ci topp mooy lu dagan lu dagan nag al mustawi tarafayni lu dagan mooy loo xam ne daa ne ci diggante daa nekk ci diggante bi ba noppi yoonalal la ñaar yépp lu dagan duñ bindal tiyaaba bu ko defee duñ bindal nit bàkkaar bu ko bañee def maanaam dagan na dagan na nga xelli ci ndox mi naan dagan na waaye bu la neexeet bañ naan bañ a naan kon lu dagan la bàyyi ji ngay bàyyi def geeg bañ a def mooyam ci yow du ca gi lu dagan rek sañ nga koo def dara dana dagan ba noppi nga bañ koo def ndax léeg yow ci sa bopp bëggoo koo def wala léeg-léeg yow jubuwoo jubuwu la jubuwu la bu dee ku mel ne Oustaz Alioune Sall mun la du ma lekk suppu kànja tegtalewu ne suppu kànja daa xaraam lu dagan la waaye moom da koo bëggut bañ gee lekk gim koy ñàkk bañ a lekk loolu kenn amu ci bàkkaar ndax du bàyyi araamal waaye lu dagan la lu dagan la lu dagan daal mooy loo xam ne eh, may nañ jullit bi dagan na ci moom mu def ko mu def ko waaye daganul ci ab jullit nag muy def dara lu dul ne da caa xam atte bi yàlla jëf ja danaa ci ñëw danaa ci ñëw moo xam ay jëf la moo xam ay jëflante la moo tax alxuraan waxoon ne fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun borom Laxdari yu bi mu daaneelee ci bunt boobu nga xam ne mooy xab bu ñaareel wi bu njëkk wa mooy awalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi jaaroon naa ci jaaroon naa ci mooy daganut ci mu kàllaf wala dafa war ci mu kàllaf wala li njëkk war ci mu kàllaf mooy mu wéral ak ngëmam bu ñaareel bi mu xam li nga xam ne mooy baaxal ay farataam mooy summa mahrifatu maa yuslihu bihi farda aynihi ka ahkaami salaati wa tahaarati wa siyaami jaaroon naa ci bi ci topp bu ñetteel bi mooy wa yajibu alayhi an yuxaafida ala xududillahi wa inda amrihi wa nahyihi téere bi Cheikh Abdourahman mu ne dana war ba tey ci mu kàllaf wa yejibu la jëfandikoo waaye day delluwaat ci awalumaa yejibu ya la njëkk a war waaye beneen wartee fa ngi nii mu ne day war ci mu kàllaf mi kon mu wattandiku mu sàmmonte mu sàmmonte ak attey borom bi subhaanahu wa taala maanaam fi yàlla rëdd ne nañ fa yam mu yam fa taxaw ci jëfe yi waaye bàyyi yi taxaw ci jëfe yi bàyyi yi kon dey war ci mu mu taxaw ci àttey borom bi maanaam li nga xam ne fa la borom bi rëdd ne nañ fa yem mu yem fa loolu mooy charia mooy constitution bi yàlla tëralal jullit bi muy chariatul islaam yi li yàlla ne dafa xaram nga ne loolu dafa xaram nga bàyyi ko bañ caa dugg li nga xamante ne moo war te mooy farata yi waajibaat yi yooyu doon say farata man du baat yi muharramaat yi yooyu yëpp ab jullit da ko war a xam fexe ba ay cëram du ci jëfandikoo du jëfandikoo ci ay cëram lu dul ak topp yàlla di moytandiku li nga xam ne mooy ak mooy yàlla faxat xaafasa ala xududillahi taala kooku moytandiku na sàmmonte na ak li nga xam ne mooy sharia léegi nag mu góorgóorlu ci jëfe ndigal yi góorgóorlu ci bàyyi tere yi loolu itam mënta ñàkk góorgóorlu ci jëfe ndigal yi góorgóorlu ci bàyyi tere yi ñëwoon naa ak yow ca waxtaani ay bis ci njariñul digle lu baax ak tere lu bon danaa ci ñëwaat waaye kon daa war ci mu kallaf mu moytandikoo xuus ci yàlla araamal ab jullit day am fu muy yem loo nekk rek xamal la ca yàlla daganal xamal lam ca araamal boo nekkee ca la dagan fon ca yam nga yam ca waaye nekk ca bam jeex nga topp fo complexe bu mu la tax a dugg ci lu araam bu la tax wutal sa bopp ni ngay jaamoo borom bi ni ngay jaamoo borom bi war a nga war ko dundee sa diine loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la ko jàngal moo tax alxuraan waxoon ne wa ma aataakum rasul fa xuduhu wa fantaxu borom bi nee na lu leen yonent bi indil jël leen kon moom moo ñuy jàngal ni ñu jaamoo borom bi subxanahu wa taala bul ne kon bul jàpp ne yaa ko gën a muus wala yaa ëpp xel wala yow mën ngaa rëddal sa bopp yoon wi nga jaar ngir jaamu borom bi subxanahu wa taala déedéet li la yonent bi rëddal jëfe ko lim la tere bàyyi ko lum leen tere fantahu bàyyi leen ko bu leen ca kenn seen loolu mooy njariñul kilifa kilifa day digle kilifa day tere maanaam day wax def leen ak bu leen def wala mooy fàttali li ñu war a def ak li ñu wërta def liñ la ne defal loo ca man defal loo ca man defal loo ca mënut bàyyil waaw loo ca mënut mooy loo ca attanut maanaam li yàlla santaane waxuñ la nga def lépp boo attanut lépp waaye yow li nga ci attan na nga yanu loolu na nga loolu jëfe ko la nga ci nga bàyyi bu feebar taxee attanoo ko bàyyil ba wér bu ñàkk taxee mënoo ko kenn tegu la ko wàcc na la ak jëf ju mën a doon bu ngànt teewee rek ngànt laa dox sa digganteeg moom liñ la tere nag amut loo ci mënta bàyyi liñ la tere moom dañoo bëgg nga bàyyi lépp lépp na nga ko bàyyi lu dul luñ la force wala wala wala loolu beneen buntu la moo tax mu ne wama ataakum rasul fa xuzu bunt bu yaatu la yonent bi moom luñ leen wax ne moo leen ko andil ñu jàngal leen ko ba mu leer rek waaye na ngeen ko jëfe seen kemtalaayal kàttan mooy na ngeen ci jëfe la ngeen man la ngeen ca mënul ngeen bàyyi tey bu ma la waxoon boo jullee ba sëlmal li nga war a def ci ay ñaan ak li ci ñëw ñaari sunna mënoo def lépp boo ko defee mën nga caa yendu fanaan ci te du jeex waaye la muy tegtale mooy na nga ci jël la nga man na ci jël la nga man te saxal ko buñ la waxee woor woor weeru koor fanweeri fan yooyu moo ciy farata ci ku ko man bu ngànt teewee fekk nga feebar ñun la bàyyil ba wér bu dee feebar boo yaakaaru ne dana wér ñu ne la joxeel nangam defal nangam boo ko manee ñu ne la wooral altine boo ko manee boo ko mënul bàyyil boo ko mënee boole ci alxemes boo ko mënee weer wu ne del woor fukki fan yaag ñett fukk yaag ñeent ak fukk yaag juróom treize quatorze quinze ci weer wu nekk nga xeeb loolu bëgg caa yokk ñu ne la bu la neexee wooral wooru yonent yàlla daawuda del woor benn fan di tëbal benn fan ba nit ki de àgg ci ne ko del woor ba mu des kon tabaskee korite ndax bis yi doo nga woor waaye ala kulli xaalin yii yëpp li muy tegtale mooy nit ki koy def day def lim man lim mënut mu bàyyi lim mënut mu bàyyi bu dee julli noonu naafila guñ la mën a jox naafila la la dox sa digganteeg moom ci ab liggéey bu dee farata ci farata la ci yow léegi tey mu ëpp ko dayo loolu taxawee ko na nga ko mane wa ma aataakum rasul fa xusu wa ma nahaakum anhu fantahu waaye nag nga sori attey borom bi subhaanahu wa taala jëfe ndigal yi bàyyi tere yi jëfe yi bàyyi yi waaw jëfe ndigal yi bàyyi tere yi loolu am solo la Abdullah ibnu Abbas nee na dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy wax naan axuufukum bi xijrikum axuufukum bi xijrikum aqulu iyaakum wa jahannama iyaakum wal xuduuda iyaakum wa jahannama nee na wax na ko ñetti yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam a ngay wax naan rik waaye moytandiku leen sawara moytandiku leen attey borom bi subhaanahu wa taala fi mu leen yamloo fi mu leen yamloo bu leen jalgati waaw bu leen jalgati bu doon ci njàngalem penc bi la mooy li la may nanga ci yem lim la mayut bul ko jalgati bul ko jalgati fi mu leen wax bul fa jaar bul fa jaar mukk ak loo yàkkamti yàkkamti borom bi subhaanahu wa taala it noonu la la rëddale ay yëf ne fa ana wala boog fa ida ana ana mittu taraktukum wa ana fardun lakum ala al awd faman warada aflaha waaw faman warada aflaha ku sàmmonteeg attey borom bi subhaanahu wa taala ak ni mu tëralee ñu dunde ko noonu kooku dana bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxe ëllëg yowmal xiyaam yal na ñu ci yàlla boole borom Laxdari yoo ngi introduire téere bi ñëw ci beneen bunt boo xam ne doy na sëkk aw waxtaan mu jëm ci wàllu tuub mu jëm ci wàllu tuub ginnaaw bi mu noppee ci lim wax léegi wa yajibu alayhi an yuxaafida ala xududillahi wa inda amrihi wa nahyihi dafa war ci mukallaf mu taxaw ci moytandiku attey borom bi subhaanahu wa taala taxaw ci jëfe ndigal yi tere yi da caa teg ne wa yatuubu te muy tuub ilallahi jëm ci yàlla xabla an yafqata alayhi lu jiitu mu koy mere waaw lu jiitu merum borom bi subhanahu wa taala di wàcc ci moom nit dana def bàkkaar borom bi bàyyi ko noonu waaye day àgg foo xam ne bu tuubut merum yàlla day wàcc ci moom moo tax léeg-léeg jafe-jafe àdduna ak yenn yi ñu lay tuddal bugalum borom bi subhanahu wa taala wala ñu lay wax yu mel noonu nga xam ne moo ci aju ki bëgg a mucc ci yooyu day doon koo xam ne day tuub tuub la muy tekki mooy dëpp dëpp kon li nga ciy déggee mooy wa yatuubu ilallaa dafa war ci mu kàllaf kon mu gaaw a tuub an yu baadira ila tawba wa rujuu min adunub mu gaaw gaawantu tuub tuub dëpp moytandiku bàkkaar yi moytandiku bàkkaar yi bàkkaar yi nga xam ne moom moo ko defal boppam ak bàkkaar yi nga xam ne da ko ànd ak mbooloo bañ a yeexe tuub gi bañ a nuur ci bàkkaar bi lu jiitu borom bi subhaanahu wa taala di ko mere ndax bu boobaa merum borom bi day waral wàccu mbugal xabla an yasxata alayhi llah bi inzalil uqub bu boobaa day wàccee ay duma borom bi yàgg naa mere aw nit wàccee lu leen bugal ci àdduna mu daal di problème yooyu yëpp noonu itam nag ba nëgëni noonu la bàkkaar di laxasoo ci tànki jaam bi ba yeexal ab doxam kon day bokk ci li nga xam ne moo ko cay musal mooy tuub waaye gaawe tuub gi gaawe tuub gi tuub dañ koy gaawe doo bàyyi ba mënatoo tële nga lottu nga feebar nga nangam nga nga door a wax ne tuub na yal nañu yàlla musal ñu man di ko fàttaliku balaa weesu ba mën a tuub suñuy bakkaar bu ñu yàlla mayee ñu dund ba altine ji di ñëw yal na ñu may ñu dudd ba booba te weesu ko daañu wéyal bunt boobu nga xam ne bu ci lañ toll te mooy tuub ñu wax la lan mooy sart yi ndax wax na la ko moom boroom téere bi te muy ñett yoo xamante ne kii tuub faaw mu bàyyi ci xel loolu danañu dimbali ci ñu jàng nan la ñu tuubee mën a tuubal borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu boole ñu defal sutura